Je voudrais avant tout rassurer les populations de Mbour ici devant moi. Vous rassurer et vous dire que vos préoccupations seront prises en charge. Et j'ai demandé au gouverneur de la région de Thiès de prendre les dispositions nécessaires pour vous affecter les terrains sur lesquels vous avez déjà édifié vos maisons. en tant que jeune en tant que élève problème transport benn am nañ ko parce que école yi sori nañ. beneen bi si topp mooy fekkee da ngaa guddee wàcc insécurité bi amul électricité. ndox bi tamit mooy lool am na ñoo xamante ne seen parents yi. peut-être du chaque jour lañ leen di mën a jox transport ñuy dem di ñëw. lycée Malick Sy ak Mbourkat booy xool ay. 7 8 kilomètres lay lay mën a tollool. fi ñëwee 2017 ci KMS 3 bi. lum ñu diggoon yëpp gisuñu ko ba pare man mi bokkoon naa sax ci ñu teewoon pancarte def nañ plus de mille na tere nelaw mooy seen papier yi ndax nit moom foo nekk kër goo xamante ne amul papier xam nga ne wóorut. wax dëgg yàlla ñun yàgg nañu fi waaw ñu ngi fi ñëw en deux mille deux. ñun ñëpp ay baadool lañ dañu nekk new doole te Macky Sall ñëw na fi. nga xam ne vraiment moom la yàlla abal réew mi te ñu ngi ko ñaan itam pour dig bu mu ñu jigu dig mu góorgóorlu mu jublu ci parce que fu mu nekk ni fii amul benn securité ndax ñun bu ñu waxee quartier bi Marième Faye Sall loolu du caakaan waaw dañ ko gom gom nañu ko ndax jigéen la boo xam ne mu ngi dimbale jigéen yi après ndox bi barigo 700 francs ndox soo jafee barigo 800 te vraiment doole yi tool na wul ñu noonu ndax vraiment luwaas bi métti na ci borom kër yow ngay dundal fukki nit ak ñaar te amoo amoo kenn rek mooy liggéey ci kër gi wala ñaar liggéey ci kër gi loolu métti mu boole ñu euh, loko yoo xam ne loko yu set ñu mun ñu déclassé sunu koñ bi courant mun a dugg ndox mun a dugg te mu quartier bi daal mu jaadu mu daal di mu daal di normal. lu tax ñu nekk fii ndax aji niw doole la ñu amuñu dara. Macky Sall ñëw fii ak baaxaayam bi mu digguñu de toute façon fii fi ngeen nekk bu soobee yàlla yéen laa koy may ah ñu d'accord ki mu ne dana leen boole ak gouverneur ak préfet affaire bi dafa am du des depuis boobu ba léegi bientôt quinze quinze kii le 17 décembre dana am ñaar at boobu ba léegi ñun amuñu suite te dañu xaw a ragal ñu bëgg lii la rasuli Macky na seet dimbale xam ne ñun ay askanam lañ mu dimbale ñu defal ñu suñu kayitu yi ñu dot courant bi am na ndox mi am na parti bu ma dugg mais am na parti boo xam ne ñoom amuñu ko te su ma sañoon ñun yëpp ñoo am nañ am ndox. waaw régularisation moom la ñuy xaar. fii du ñëpp ñoo am euh, kii mbedd nekk normal. man ni su ma su ma soon mbedd yi normal na ndox dugg na mais branché gu ñu comptoir yi tuyaux yëpp dugg na. sonn nañu ñun waa Mbour 4 extension. parce que bañ fa nekkee ba léegi yàgg na te président lim ñu digoon boobu ba léegi ne ñu jox këyit ñu ngi xoslu boobu ba léegi mënuñoo jox këyit sonn nañ torop léegi nag ñu ngi waaj a préparer anniversaire bi li ñu waxoon ne ñu di jox suñu këyit léegi jour boobu mu ngi siwaat ginnaaw yàlla ak yonent bi yow la ñu yaakaar Macky Sall waxal ci ñun. ñii ñu yóbbu leen tribunal woo leen di leen wax affaire këyit te këyit amu fa këyit ya dee am yaa ñu koy jox. te ba nga waxee gouverneur ba léegi ñoo ngi nii toog sonn nañu. collectif bi si Mbour 4 extension sonn nañu fu ne ñu ngi fay dugg fu ne ñu ngi fay génn ñu ngi ñaan ndimbal fu ne te defe naa ndimbalu président nag moo gën a teew ndimbalu ñëpp bu ñu ñaanee ñëpp ñu may ñu tey mayoo ñu tamit dañuy am problème. Allah ku yorul ay taalibe sax boo amee problème ndox da ngay sonn asamaa ki nga xam ne dafa yore ay taalibe. metti na lool sax li ñuy dund fii metti na lool ñàkk ndox bi metti na fii amul ndox amul courant ñàkk sécurité. ñu ñëw jàppale ñu wax dëgg yàlla soxla nañ ndimbal fii ci Mbourkat extension. moo waral ñun ñu def pré recensement Mbourkat extension moo waral képp ku dugg ci sit bi di nga gis ay numéro ñu bind ci kër yi ci terrain yi ak ci pen yi ñu fa def affaire baa ngi dox mais ñun euh, problème bi ñu am mooy dafa dafa yàgg xaw naa yàgg ci biir yàggaay boobu. am na ay nit yoo xam ne dañuy dugg foofu indi ay lettre d'attribution yoo xam ne dafay sonal nit ñi yenn saa yi day yóbbu nit ñi tribunal yenn saa yi ñu jàll nit ki defeere ko parce que dafa yor lettre d'attribution mais yàlla mi ñuy jàppale ba ah, ñu ngi ciy génn yenn saa yi ñu ngi dem tribunal di gagné procès yi yenn saa yi mi ngi nekk procès yaa ngi nekk stand-by nekk parallèle na ko ñu jox ko loolu gis nañ ko ci télé yi gis nañ ko ci journal yi bañ ko parrainé jox nañ ko ah, Charles Emile Cissé directeur de la SODD lañ ko jox mu jot la ko président de la république kon ñun président fàttewuñu ko te yaakaar naa ne ñu administration moo xaw a yéex. ndax le 18 décembre lañu ñu am deux ans moo tax ñu bëgg def benn manifestation bu mag a mag a mag a mag a mag képp ku dëkk Mbour 4 ah, Mbour 3 Mbour 4 extension fayu Grand Sanding bëgg nañ nga ñëw jàpp ci bés bi mais fu mu toll nii li ci des mooy ñu jox ñu suñuy kayit ñëpp nekk ci jàmm parce que sonn nañ parce que y a des lettres yu dugg ci yu dugg. bi ñu defee recensement bi gars dañoo empiété ci fore bi looloo tax boo leen dégg ñun ñuy wax dañuy wax Mbour 4 extension extension boobu mooy yi nekk ci biir fore bi. waa eaux et forêt dañ see bokk parce que ñoom seen bopp ñoo ñëw def topographie fore bi fu mu commencé dugg ci biir kon fépp foo xam dafa dugg ci fore bi am ñoom boo demee dañ lay defaral këyit dañ lay defaral këyit ne la lii ci forêt bi la neween bokk amul benn lettre bu fi valable xëy na borom lettre yi ñoo gëm yàlla parce que wax nañ lu leer ne leen. toog leen ngeen xaar borom leerte du ñu ñàkk ñi nga xam da yor ay acte fan ñu édifier seen seen seen kër yi foofu du ñu ñàkk. maanaam euh, mobilisation la mun nañ ko wax anniversaire parce que bés bi ñëwaat la dañ koy feete échange nañ ñëw du xeexuñu xulóowuñu marsuñu kaasuñu dañuy bégal. dañuy bëggal waa Mbourkat extension fàttali président fàttali les autorités yi nekk Thiès ak toutes les autorités compétentes yi nga xam ne ni ñoo nekk ci dossier bi ñu xam ne ni waa Mbourkat tooguñu ñu ngi ci ginnaaw dossier ba léegi xam ne affaire bi dara sottiku. Mbourkat dégg naa seen mëbët jàpp leen ne saafara nañ ko boo leen tëddee na nelaw maa ngi sant ñëpp di gërëm leen.